jërë ngeen jëf uh, mbokk yi gis ngeen sama ginau ni, li ngeen gis nii lu jéggi dayo la moo tax ñu fas yéene tey ci dossier sur table ko lii di domaine public maritime bi liñ fi seetlu moo di gars yi ñi koy saax-saaxee ci anam bu jéggi dayo ba tax na dinañ ci mi wan leen ay kër yoo xam ne tabax nañ ko fi ñu mën a laaj kan moo leen jox autorisation yu mel noonu ndax lii jaaduwul booy daw si kaw corniche bi doo ko gis ndax dafa suufe mais ay nit ñu ngi fiy tabax ay kër yoo xam ne ñoom sa bopp ku leen wax ñu ne am na ay këyit ñu mën leen laaj kan ñoo leen jox këyit yooyu ndax domaine public maritime dafa nekk loo xam ne balaa nga fi tabax ay décret présidentiel moko wara war joxe kon ñu andano sétane ay image yu bëree bëri ci béréb yu bëree pour ngeen xamné ne nek ni ngi tiax tiaxé li di littoral bi te mu doon lu jéggi dayoo mission biir émission dossier sur table gis ngeen léegi ngeen ne hôtel lañ fa fassiyéné tabax juróon na ciow lu baree bari mu nek lo xamné xam nga hôtel bi avec l'avancée de la mer ken ñaanuko yalla mais buñ ko tabaxone hôtel ba mu noppi sax mën nañ xey suba avancée de la mer bi tax hôtel bi mab. Li nak mo xew ci fi nga xamné modi corniche bi. den àndandoo nag wan leen yeneen i béréb lépp pour wan leen li nga xam ne moom la ñuy def ci wàllu littoral bi te mu jéggi dayoo lool ay ci leen ñu dem. yéen a ngi gis kër yaa ngi nii ay kër yoo xam ne tabax nañ ko fii ba pare di laqatu di defar ay terrain yoo xam ne noppeegul sax lépp nag dara jaaru ci yoon moo tax dañuy interpeller sax le président de la république parce que moom bañ ko waxee woon ne ko. nit ñaa ngi saax-saaxee li nga xam ne mooy suuf si nekk ci littoral bi ci domaine public maritime bi am na lu mosoon a wax nee na moom mayoon nañ ko sax terrain mais delloo na ko te que aaye na ko te loolu ba mu koy wax 2013 la muy kàddug njiitu réew mi di kilifa ñëpp waaye tey jii dafa mel ni kàddu googu nit ñi respecté wuñ ko weguñu ko moo tax lu leen neex la ñuy def te lii benn parti la rek den continuer wan Len leneen yu gën a garaaw yoo xam ne mi ngi am fii eh, ci domaine public maritime bi te ñu jàpp yéen a ngi seen appartement yële ngeen di gis ay 600 millions lañ koy jaayee tabax ko ci domaine public maritime te ñu am doole lool ñoo koy def ñu bàyyi leen ngeen gis ko ñu xool ndax jaadu na wala jaaduwul. gis ngeen sama ginnaaw fii plage la woon mais boo xoolee bu baax a baax a baax nit ñi ñu ngi koy commencé di daje ay xeer pour lan wut luñ fa tabax xeer yi dañ koy jël sànni ko ci biir géej waaye waaye ñu mën a laaj kan moo leen jox autorisation bi nañ doon xool image yi image yi dafay jéggi de des fois da ngay wax ne est-ce que sax ñiy def lii. nite nañ parce que ñi ngi lor ay doomu aadama parce que fii plage la woon léegi plage yëpp daanaka plage privée la ñu xool image yi. gis ngeen image yooyu ñu leen wan ci ginnaaw hôtel teeru bi la ndekete gaa fay gas di fa tabax ay appartement yoo xam ne dañ ko fa yéenee jaay borom moom xam naa noonu la fa yéenee def te bu leen fàttaliku ci wetu teeru bi amoon na coow lu fa amoon mooy bañ fa bëggee jox terrain euh, ambassade bu turki nit ñi jóg ba président de la république moom moo dakkaloon liggéey tey nag. la mu dakkaloon lu ko gën a garaaw moo am ci ginnaaw téeru bi la gars yi di gas yaa ngi gis ñoo ñu di liggéey en pleine journée nëbbatuwun sax du guddi bëccëg lañ ko def ñu gis ne nit ñaa ngi tabax fii ci ginnaaw téeru bi téeru bi sax am na loo xam ne jox nañ ko ko jaaduwul woon dañ ko yàgg bañ jox nañ ko ko léegi nag fii ci ginnaaw téeru bi lañ commencé di def ay liggéey gis nga image ginnaaw euh, ba ñu jógee fi nga xam ne moo di teeru bi ñu ngi ci Cap Manuel xam nga ñu bari sax du ñu yegg fii moo tax du ñu gis li fi gaa yi def xool leen lii xool lii lii ay tabax yu bees la boo leen séenee fee ci kaw.

njiitu réew mi yëkkati woon kàddoom na kenn dootul tabax ci fi nga xam ne moo di domaine public maritime bi war na nag wax sénégalais yi tamit ñan ñooy def lu mel nii parce que lii ñu ne décret présidentiel rek moo la ko mën a may seetaan leen image ginnaaw ba ñu jógee Cap Manuel ñëw nañ ba fii Mamel boo jógee Mamel fi jàkkaarloog ARTP doo ko xool mais gaa yaa ngi koy gas di ci tabax ci à côté fii la euh, président Macky Sall waxoon ne amoon na fi terrain mais delloo na ko gaa yi waaye li jaaxal ñëpp may na ñeneen ñoom ñu ngi tabax moom delloo na te aaye woon na kenn du fi tabax kon da leen koy won ngeen gis ko. xam nga tungu na du tew ñuy natt ci ëkk moo gis ngeen euh, gaa yaa ngi ni di gas di fi tabax kër yoo xam ne dafa jéggi ay immeuble tabax fat de telle sorte que plage bi dañ ko privatiser kenn dootul gisati plage man nga daw ci corniche bi ba yegg ndakaaru dootoo gisati li nga xam di plage mu nekk lu kéemaane ma bàyyi leen ngeen xool image gis ngeen euh, liñ leen wan ci li nga xamné mo nek ci littoral bi té dañ ci coof rek ay mbir mu nek lu jéggi dayo lu doy war ñu bëgg nak lancer un cri de cœur bo xamné pour sensibiliser davantage nit ñi du rek amna alal lu ma neex lay def amna naa doole xam président de la république bu ma demee mu defal ma décret level mako ma ñew tabax fa lu mu neex parce que plage bi.

Euh, am doole c'est que kuréel bobu ñi ko samp ñu ci nek ku ci nek ngi xex ci fi nga nek ñi ngi xex Wakam ñi ngi xex Almadi ñi ngi xex boru Cap Manuel ñi ngi xex euh, Jamalay, lolu moko regrouper regroupé ñoo gën a am importance donc foo munti dem rek amna fa ben kuréel bo xam ñi ngi xalat di xol puisque ñun comme ni ma ko expliquer won suñu suñu action force de proposition la dëkk bi nekk na dëkk boo xam ne débat nañ ko débat débat ba nga xam ne booy wax kenn du xam sax looy wax donc ñun dañu ne ñëpp xam nañu dëkk bi ni mu demee ci affaire littoral boo bëggee xam Sénégal yi ñooy ñan ci boo bëggee xam Sénégal yi ñooy ñan ci ci xam-xam boo bëggee gis Sénégalais yi ñooy ñan ci ni ñu bëggee seen dëkk wala bëgguñu seen dëkk Sénégalais bi nga xam ne day voyager ci àddina bi amul fu mu munti dem fu gën a rafet ci àddina bi dem na fa gis na ne littoral yi booru géej. kooku weddi gis bokku ci fo dem ngay gis fi ñun bu ñuy séddoo suñu yëf fële ngay dem vacances Maroc parce que Maroc di nga fa fekk fo xam ñang koy gérer bu baaxa baaxa baax donc xex bobu ñuy jema def bo won na la né Sénégalais bi bo bëggee xam moy kan rek demel nga xol affaire littoral bi dina dem rapidement ci ben université bi gëna a ci adina bi bo xam arvar la nekk dafa am ben ben ben école ci bir bo xam dañ lay wax né bo jëlé affaire éducation

C'est ce quand même que ressentir aménagement du territoire aménagement du territoire que du entassement deuk du agglomération entre ay nit ak ay ki ngay def lu neex du du fu la neex nga def cimetière du fay am ay trottoir da nous espace vert fa am nous ñuy nous euh, virus justement indi parce que léegi point de départ la boo fi nekkee di xalaat ni doo dem da ngay ne léegi li ñu am ci problème fii ci biir dëkk bi ci àddina bi ku ci nekk ngi ne li ñu yàlla woon tey mooy dañu war a léegi naka la ñuy def pour le futur. alors naka la ñuy def pour le futur ñu ngi xeex nañu wàññi suñu dette ak yëpp mais balaa ngay def loolu la nga am yow na nga ko sàmm na nga wane ci àddina bi ne yow da nga nekk nit bu sérieux que yow la ngay am loolu vraiment xam nga xam nga loo cay def. mais fii li ma jaaxal lan la nit mën a mën a tabaxee ci domaine publique maritime bi te li ma ci gis ci ay tabax du ku néew doole moo ko mën a def comme kattan moo ko mën a def. domaine publique maritime bi nañu ko jël dafa am histoire am Senghor def na benn loi. loi bi c'est inaliénable c'est-à-dire que kenn mënu ko mom mënu ko jaay loi bi c'est imprescriptible même sur 20 ans 30 ans mënoo ko mom amul amul prescriptibilité mën nga wax par exemple buma satché dara si je suis 4 ans vous ma jappolé dotu ma mën ma ci fay dédé mel non ko mom euh, ci droit bo xamné c'est depuis 1800 le droit cesse où l'abus commence bu amee abus rek amatul droit su ku fi mën a am dara bu fekkee ne dafa reposer ci ay abus rek amuloo dara léegi nag naka la jógee ci lu ñu ne mënuñu ko jaay kenn mënu ko moom ba pare am ñu ko moom dafa am benn disposition bu wax déclassement ah, disposition de déclassement bi moy lan moy par exemple nga ne tiens voilà ci bordu géej gi dañ fi wara def benn bâtiment militaire waaw ah bon mënuñu fa tabax mënuñu ko mom da ngay dem défi déclassement dindi ko ci domaine public maritime pour mun ko tabax donc lolo nak au lieu ñu defee ko noonu ak vocation utilité publique bi muy àndal loolu la ñu jël teggi ko fële léegi nag mu privé ñu jox la terrain nga dem def sa immeuble def say appartement jay ko 300 400 500 600 millions ñepp di gis. kon lolu dëd teguwul ci yoon. non tegul ci ben yoon pour ñun tegul ci ben yoon mom lay wax le droit cesse où l'abus commence sori ci affaire parce que nous sommes métier mais quand même ci liñ ak liñ ci xam mais beut sax mën na la gis par exemple dañuy protéger littoral bi ci mais c'est parce que utilité publique motax Les bokoy déclasser rek parce que dañ koy ci utilité publique même bu féké né damay def hôtel amna ben kenn wax mais hôtel économie la utilité publique intérêt général mais bu vous né da nga hôtel nga ne voilà man damay defar li jox len ma terrain dañuy def lay contrat contrat administratif danaa danaa am temps d'emploi emploi vérifier ne ba yang koy def ñu lay accompagner mais mënuloo mom terrain bi. amna sama benn frère bu buy liggéey Vietnam bu ñëwee fii dafay tiit mu ne ma mais naka ngeen jëlé sen terrain jox ko sax ba am ño xamné ne ñi ngi koy moom te nekk bitim réew kooku xel mënu ko xalat Vietnam c'est pas possible même appartement bokoy jënd dang koy jënd ci bay dañ lay wax 10 ans nga koy jënd bu féké nga dem ba 8 ans ngay dem 2 ans rek ngay jaayaat donc loolu mooy problème bi c'est-à-dire que fi mu nekk nii bu fekkee dañuy wax point de départ bu bees nga xam ne loolu la ñu feebar bi woon léegi dañuy commencé nekk nit ñu sérieux mënuñu fi nekk di discuter yëpp xam nañ ñun ñëpp ak suñu bët xam nañu ne affaire bi fii am taxawul. mais littoral bi moom moo laa on l'a perdu parce que li ma gis ñu tabax ci littoral bi moom mu pour ñu dindiwaat ko moom sera compliqué. non ñun man bi ma gisee ne que affaire bi mi ngi demee nii chaque fois dañ may wax mais Mokhtar depuis 2000 ñu ngi la gis ngay bind di def ay lettres ouvertes président et cetera et cetera mais xanaa yow do son mané non légui yow bo may suivre di nga gis ne que léegi maa ngi liggéey pour génération future yi c'est-à-dire que dama ne légui luma mënul lal lu sama génération mënul lal luma amul doole pour defar ko bo xamné dégguñuma man ma ngi wax ak gouvernement dégguñuma man damay intéressé wu ci li ñuy wax les questions vitales qui ont un risque d'irréversibilité moy li nga xamné buñ bu ñu ko réglé wulee ñeneen ñi bu ñëw duñ ko mën régler. donc man ci lolu la liggéey économie finance sociologie droit pour voir une génération future non non non li. xam nga li l'économie wax la économie wala finance dañ la jàng la destruction créatrice Moy moy yak nous xamné ne ça. Euh, la donc dañ koy sax sciences éco nous dañ koy jàng boko waxé kuy def économie wax immédiatement ku Joseph Schumpeter moko jàngalé. Bo démé Harvard dañ koy exécuter boo ñu nee euh, Nokia ak lu euh, ma tuddati ak iPhone ci loolu lañ ko tabaxee destruction créatrice pour euh, Daniel, Daniel Nokia et cetera donc ñun ni ñu gaay gars yi détruire li fi nekk parce que richesse la détruire ko. waaw léegi léegi léegi oh, yow am ngay proposition concrète yoo xam ne demoon nga si ba dialogue national bi sax ba def ko mhm. proposition yooyu est-ce que mën nga ci dellu si waat man defal naa propositions huit mesures la def mesures yoyu dama né bima koy présenter dialogue national ba bima koy présenter aussi candidat présidentiel yi dama len né dama ko calibrer ci ñun ni ñu mel bu féké né ñun ñu régler problème talibé. taalibe yi ma xam ne lii suñu doolé bu né mënu ñu dindi Sandaga ni ma li moy suñu doolé

Ben drone tourner ci littoral bi ñep gis parce que tout le monde fait bloc contre pour, le virus tout le monde fait bloc sur euh, euh, je, l'avais dit en avance parce que je me disais littoral bi dañu war def bloc aussi ñu jël Ben qui nga xamné ne am wax fi dafa bari ciow bo ni ñu qui la ni ñu nga jël drone ko ci ci littoral bi yëpp fep fo xamné ko nga tek ci sa loxo ko nga exercer ce qu'on appelle le droit de reprise amna yu bari ñu loupé yoo on ne pouvait euh, avoir les droits de reprise defuñu ko par exemple nga joxone benn way bay ne ko au bout de deux ans li ngay def defu ko mënoon nga ko nangu mais dañu gis ne que yëpp dañ leen ko delloo donc loolu moy la première des choses mesure conservatoire dañuy jëkke jël drone bi ñu né fi amna li buñ fi lalati fi amna li buñ fi lalati ñu ne li lañu am ci surface ci li lañuy ñuy liggéey dans un premier temps deuxième temps bi ñu def benn décret le décret bi sax ñaari décret la benn décret dama président et chef de l'État du Sénégal on na am benn euh, grand projet du chef de l'État pour les 10 B que forme la ville de Dakar xam nga 10 B bo Yoff Ngor euh, Almadi euh, Wakam Mermoz Fann euh, Medina, Cap Manuel Anse Bernard ak Anne. mais tu as 10 B ak benn B boo comme abbé de Hann que le Coca Cabana lañ doon méngaloo ñun fii poubelle alors que Coca Cabana est mooy buntu adina bi donc si on a un décret on xam fait établir que mu am un grand projet du chef de l'État dañuy obligé def ay projet nous obligé ne un grand projet bi pour l'île, pour l'île. pour décret bi le statut d'utilité publique nous gën ko renforcer daal di ne lépp lu ñuy tabax ci littoral bi war une destination d'utilité publique. ensuite troisième point bi gis nga dafa am benn affaire qui est ne dama ko Maroc Nous dañu am cartographie des potentialités c'est-à-dire drone boobu buy def loolu danañu xool coin bu nekk fii ñu nekk nii ñu Nous ko tous euh, les Wakamois fii nous féetee les peuples de l'eau donc dafa am une histoire entre les Wakamois et l'eau Kakala la nga fële ñu ngi ci wax lu Donc, donc littoral bi faut dem rek histoire comme ça nous devons des projets tenir compte des projet pour que s'il y a des parce que de la ville là ça va se développer donc ni ñi ne la la troisième mesure quatrième mesure bi la taxe de privilège littoral man suis dit, pacte candidat taxe de privilège littoral ne taxe de privilège littoral moy képp ko xamné da nga am privilège dëkk ci boru géej gi nga xamné ya yaa ngi ñuy ya yaa ngi wañi euh, ya ngi tax ya yaa ngi tax permis du ñëw ci man ya ngi tax fièvre parce que nañu am na benn question ci affaire affaire fièvre bi donc euh vent bi nga xamné mom moy wara balayer pollution bi fumée bu ñuul bii ñuy gis ni bu fekk dafa amul lu ñu tabaxee littoral bi ngelaw yi dinañ ko diriger ba nga xamné dara du fi taxaw ci affaire yoyu donc

en tout cas qu'il faut qu'il rëcc ba jaar fa moom dana am lu muy fay et cetera et cetera ensuite kooku mooy quatrième mesure cinquième mesure bi dama ko déclasser comme ça moi, bi am importance gis nga ku ñuy Steve Jobs moom mooy yore moo defar iPhone yi nga xam ne moom la ñuy déglu boo jëlee Steve Jobs mais mon, Steve Jobs dafa euh, bu fekkee ne nit ñi dañu am dañu partager une vision ñoom xam nañu ni ñuy def pour pour egg

di nga gis nit ñi ñoy cotiser sen bopp pour ñoo def espace vert gis nañ ko man sama bopp nii boo gisee euh, route corniche bi yëpp man mii maa jëkkat def ak sama xaliss man ma ñëw def ay ay palmier gas di jënde palmier par 5000 5000 5000 5000 diko tek teg diko gis ma wax sama xarit tek len tek len tek len tek len motax nga gis euh, espace vert fi donc bu nit ñi bokké ci affaire rek dañuy dem donc abi Ahmed loolu la ko dégg muy def ba mu né ñoo ñu ngi seeni problème ah bon mais euh, Éthiopie mengok euh, Kagame bon, ñing koy suivre. Ñele ñom ñi ngi xex ak Kagame ci dañu bëgg seen ville gëna rafet bobu. Mais ñom Abi Ahmed dafa def ben ben repas ben dîner da dîner dîner bi ben bu ci nek euh, couvert 100 millions de jar. Mi ngi melni tay mané dans le restaurant. Mais yo sa place 100 millions de jar. 200 personnes ñoo ñoo

parce que gis naa mu d'ailleurs c'est un bon exemple Fofana Bi Fofana génnee ñëpp di wax mais gars yi hein. mais c'est super bien c'est super bien dama lay wax. condition qu'il aille jusqu'au bout. ah oui ah oui mais mais lolo, li ma bëgg a wane foofu mooy yi pour pousse Vous bu bëggee dem rek dem. sixième point bi alors sixième point bi donc politique nationale d'architecture d'urbanisme et d'aménagement mooy dans le le le le truc de Steve Jobs bi may wax vision bi c'est-à-dire que si war nañu am benn politique maa ngi ko jëlee Canada jëlee ko Irlande jëlee ko Australie ñoom ñëpp dañu am seen politique de de de vision littorale. donc politique nationale bi dana wane ne de fii ba fii nii lañ koy architecture bi lañ koy tabaxé urbanisme bi ni lay démé fi ni lay démé fi dañuy bayyi ngelaw bi fi dañuy def fi espace vert lay nek ñu 30 yi war na nek espace vert 30 yi war na nek ay projets culturels ak sportifs. 40 pour cent ko tabax ay hôtel ak ak yu mel donc politique nationale d'architecture bobu la parce que Sénégal amna fi dara luñ fi def yang koy gis ci CICES ñun ñoo commencé développer yoy ci ci bi fi en tout cas en Afrique ñoo waroon nek ben école wala ben université bo xamné fi fii nga koy jàngee ñun débrouillé nañu ba loolu sax ñu yàq ko dem tabax wër ko ba étouffé ko mais loolu politique nationale d'architecture, la donc dana tax architecte yi di xarañ di defar pas recopier amna yo xamné xam dana moderne mais dana am yo xamné da nga boo ñëwee Sénégal da ngay ne ki Sénégal la parce que architecture bi ni la démé lool moy politique nationale d'architecture koku euh dégg na euh, Karim dila wax ci sa émission bu mujj bale né dañu amna 9 km yo xamné dañ ciy liggéey mais dañu ko war annoncer def ko politique nationale partager ko d'accord accord ngeen d' ñun ñi mënuñu dégg loolu nek ci télévision mi ñi nga xeex depuis 20 ans ñu ne mais Mokhtar lo ci xalat même Pierre bële yow lo ci xalat yow kee lo ci xalat mais loolu bokkul ak nga dégg rek commencé ben way di gas fële di def benn immeuble fële ciow li ni cour et papale xoolal lii woné li ceeg ceeg ceeg yow sax da ngay dem ba énervé gis na ngay énervé di ñu defee né yow yaay yoy bra yaay bra armée bi xam nga man bu ma ñëwee fii je ne suis pas un opposant je ne suis pas un truc mais je suis li may wax mang koy woné parce que consensus ak bloc lay wut donc kooku moom donne 6e mesure bi 7e mesure bi par ma bañu faté fàtte sax parce que sama document ngi ni cette euh, septième mesure bi c'était quoi contexte de privilège potentialité euh, avec euh, notre droit à un environnement sain non renonciation volontaire beaucoup de femmes, dolé. Mais renonciation volontaire de xam nga président Macky Sall def fait ko ci terrain waaw mais bu ko defee ci terrain c'est un seetaan ñeneen ñuy tabax amul njëriñ. ah lolo nak mom loolu moy incohérence yi nga xamné euh conseillers yi ñun d'accord nañu pour conseiller ko ci lolo gratuitement on est tout un comité on peut travailler Vous fekkee ne mi ngi ñuy dégg proposer nañ ko loolu parce que dina gis ne que addina bi cinq ans fii dana changé dund bi dootul nekk la même chose te ci littoral bi lañ koy def comme ni ko Arvar duñu ko loupé ça ce n'est pas possible te nekkuñu fi c'est tranquille c'est positif nekkuñu fi di démobiliser ne dañuy toj kër yi dañuy def déedéet xel moo koy moom moo koy suivre bi mu jëlee ne man delloo sama terrain 2000 mètres carrés mi ngi woon ci déclaration de patrimoine am bi ñu gis ko mu téléphoné ñu ba paré wax ko ci euh, conseil des ministres euh, euh, conférence de presse conseil des ministres bu Kaffrine mais ñun koku man ci lay xex depuis mais président bi woné na yoon bi mais mo gëna goré gore gaayam yi muy yi muy àndal. mais man bu ma nekkoon gaayam yi fi mu nekk nii soo xoolee kër yu bax yëpp ñom ñoko jël. bu ma nekkoon président loolu mënul am c'est pas possible xawma lan moy problème bi mu am mom mën naa am yoo xam ne dañ ko xam ñun xamuñu ko waa ne moom restitué na terrain dañu ne na ñeneen ñëpp restitué na ko wax bu ñu ko waxee ñun dañuy gunge loolu waxuñu ñëw dañuy ñëw restitué mais xam nga ñun suñu dëkk bi li ko gën a naa nga delloo ci après ci ci ci wala nañu continuer sax rapidement parce que dafa bëggoon ñëw ci politique de la rente pour tëjee loolu parce que loolu moom mooy suñu moo tax Sénégal bu ñu continuer noonu du dem jamais parce que foofu lu yëpp nekk euh, donc qui euh, euh, renonciation volontaire boobu amna na ñoo xam ku melni Habib Sy ba mu ko déggé téléphoné na ma ne ma ah man de amoon naa 600 mètres carrés bayina naa ko euh, à l'époque euh, je crois que euh, Hadjibou Soumaré waxon na tamit day bàyyi bosam après ñu gis probable né dara du yëngatu peut-être que kenn du def dara mais wóor na ma ne tey bu ñu né on restitue mais ñu né on restitue mais fi ñuy nekk ni proposer nañ ma proposer nañ sama jabar gratuitement mais jëluñu ko pourtant am na ay xarit di ko jël c'est très grave parce que ça va déglinguer presque l'économie. donc maintenant après le point bi c'est le droit à un environnement sain le droit de respirer la côte mais gis nga des jeunes qui se sont battus pour une pétition sur l'aéroport de Dakar c'est un rêve nous, New président ne ko fii que notre Central Park suñu espace vert des espaces verts bo fa duggee da ngay joy laa la wax ku nek ngi jël fi ki jël fi jël fi fas yaa ngi fii Guinée yaa ngi gas fi ñii ñi ngi def li man dama dugg mané fi fii fi commencé dugg man dana crever avant l'âge parce que mënu ma ko supporter le droit de respirer océan bi man ma ngi faté fàttaliku Paris ben pic bu am importance mo fa amoon ma dégg Air Paris directeur bi di wax né non non de toute façon les vents sont favorables les vents océaniques sont favorables yo xolé Paris 800 km ak euh, ak la mer ñoom ñuy wax les vents marins ñoy tax du ñam am pollution ñun ñi nga xam ne presqu'île lañu 10B ñun ñu tabax suñu dëkk ba nga xam ne mënuñu noyyi ko kay ñun buñ ñuy door yat virus bi bu ñoon door dañ ko mériter fooy jéxalé ci politique de rente bi. alors politique de rente bi c'est bon amon étudiant hier parce que euh, amna éducation ci affaire littoral bi bu ñuy wax LUDI littoral urbain euh, durable intelligent c'est pour les universités pour que nit ñi xam lan moy littoral ak richesse bi ci am parce que le littoral sur l'économie parce que c'est une aberration économique c'est une aberration sanitaire c'est une aberration sociologique de tout et bonne moi cette question Ça nga rente rente bi ah, la amul amul démocratie mais ñun dañu ci yow frère am mais pap xam nga bu euh, day ñëw lekk boog mu neex ko door ataayam sieste suba mu ñewat amna na dëkk yoo xam ne ko fa def bu fekke ne yaa ngi ak sa kàttan mën nga ñëw lek ben yoon mais da ngay. mais ñom fi fi littéral bi boo fi tabaxee benn immeuble. bu nekk bu bu di jaayé appartement yi 600 millions. mais loolu la pare nga ci. ci rente bi lay ñëwee. justement loolu dama bëggoon won la base sociologique que ñun peut-être ñun ñoo mel nonu euh, ci suñu société ni muy démé deuxième bi sur le plan politique ay rappel rek lay def yaa ngi fàttaliku compte K2 compte cas de Senghor bon sénégalais il faut que quand même nous, n'ek niveau wu ñi fi compte sur le plan économique finalement ñu lay may millions 30 millions etc. etc. et 20 ans après d'ailleurs ñu len di nous. donc ça nous installer nit ñi pas d'effort tu n'es pas productif alors ce qui may ça a été le foncier c'est ça qui a déglingué l'économie alors que ñun loolu moo doon nekk suñu doole bu mag soo ko juste sur le littoral yow bu ñu la may 1000 m 2 may nañ la 1 milliard mais looy def pap jënd sa oto dem tëdd nelaw xam nga looy def luy sa liggéey C'est liggéey mooy perpétuer ce système là spéculatif yaa ngi xool nooy amee beneen 1000 m carrés noo amee beneen immeuble buy def noonu pendant ce temps là di nga libérer économie bi économie bi di nga libérer économie bi jox ko ñeneen ñi suñu suñu suñu suñu économie alimentaire bi kenn mënu ko discuter des fruits, dara muy fruit muy ñoo la même euh, suñu xarit yi nga xamné ñi ngi fi dëkk bu wax ñuy wax damay communautarisme ak yépp mais ñoo produire des sax ñëw nañu euh, nañu Sénégal is an easy prey Sénégal est une proie facile da ngay ñëw jël jël jël parce que sénégalais bi dañ ko yobbu ci des xolal ñi nga des dañ leen di may 2000 m2 kër feulé à des Résidence wala kër maison gi mais mu def pour am rente la conclusion c'est que ça te déglingue l'économie puisque le Sénégalais spéculation ak facilité les demee ce que ça déglingue c'est la cohésion nationale man mi lay wax ni combien d'ennemis man nga xamné on me dit ouvert euh, artiste tout ce que tu veux mais ñun c'est positif c'est tranquille ce qu'on fait on est dans la destruction créatrice su fait niveau boobu la niveau bëgg a egg dañu bëgg a de niveau bi may wax à niveau Kagame c'est la destruction créatrice su fekkee ne mënuñu niveau léegi nag mooy li wax taxe de privilège littoral mooy renonciation volontaire c'est plus c'est plus calme ça correspond peut-être plus à ce que le Sénégalais est xam-xam la ñu dégg ci euh, Matar euh, Ba euh, mu nekk kuy xeex lu bari ci wàllu littoral bi mais lii moom kenn mënu ko rafetlu ñaaw na